al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin ayuha alifatul muminun بمناسبة خروجنا من شهر رمضان وإكمالنا على ركن من أركان الإسلام نسأل الله أن يتقبل منا ما عملناه خلال هذا الشهر المبارك من صالح الأعمال وأن يغفر لنا ما فرطنا فيه أثناءه حتى تتحقق لنا الفرحتان allataani dakarahuma arrasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi qawli inna lissaaimi farxatayn ida aftara farix wa ida laqiya allaha farix ayoha lixatu moo ngi noonu inna chahra ramadana yanbagi an yakuna lilmuslimi bimathabati muaskarin tadribi yatazawadu fihi bi xisaani alxayr allati jimaacuha taqwa yaqulu allahu taala yaa ayuha alladina aamanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun faman taraka qawla zuuri walcamala bihi tiwaala alshahri almubaarak yanbagi an yastamira ala dalika baqiyata xayaatih wa man taxallaa fiihi an irrada an iljidaali walxisaami walmushaatama laa yaliqu bihi an yacuuda ilayha bacda wa man fihi nawafila alxayri min salaatin wa dikrin wa sadaqa laa yuqalu an yataxalla anha bi mujarradi xurujihi min alchahri alkarim noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dool ko xéewal ak mujj moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci tukki mbokk bi nuy génn ci weeru koor matal ci ab ponk ci ponki lislaam yi dañuy ñaan yàlla mu nangul nu li nu ci def ci lu baax te jéggal nu itam gépp gàttañ lu gënu ci def ngir ñaari mbégte yi yonente bi wax ne sallallahu alayhi wa sallam yi mu wax ne ki woor dana ko am ngir nu mën am ñaari mbégte yépp dafa wax ne ki woor dana am yaari bégte bu wooree dana bég bu dajeeg boroom itam boroomam itam dana bég nu ñaan kon yàlla defal nu ñaari bégte yooyu yëpp mbokk yi weeru koor dafa war a mel ne rek li ñuy tuddee camp mooy fu ñuy tàggate nit fu ñuy tàggate nit ab diir ngir am luñ bëgg a def ci moom bu fa jógee loolee des ci moom li ñuy tàggate nit ki nag ci koor mooy lépp loo xam ne lu baax la rek te lépp lu baax li ko tënk rek mooy wattu yàlla li wolof di wax ragal yàlla yàlla bi muy wax mbirum koor wax ne farataal naa ko ci yéen dafa wax ne farataal naa ko ci yéen ndax yàlla ngeen jële ci ak wattu yàlla ak ragal yàlla kon day mel na loolu mooy liñ war jële ci koor kon ki ci dugg bu génnee war na caa jële loola wattu yàlla nag te te naan ko ragal yàlla dañ naan mooy rek di def lim digle di moytu lim tere kon loolu nit war na koo jéem a jële ci koor ndax kat koor gi ku ci nekk daana moytu di wax lu mu wax daana moytul di def lu mu wërta def ndax yonente bi moo ne ku woor ba noppi te bàyyiwut li mu war a bàyyi ci wax ak jëf kooka kooram nga du ko amal njariñ bañ lekk ak bañ naan rek la def te loola yàlla aaj soxlawu ko kon doon nañ jéem a def loolu ci biir weeru koor bi ku doon jéem loolu ci biir weeru koor bi nag du da caa war a sax bu weeru jàlle itam mu jéem a sax te loola di moytu li ñu war a moytu ci wax ak ci jëf ci biir weeru koor bi daanañ ci moytu ay xuloo ak lu ko nuru ndax yonent bi tam moo waxoon ne ku woor bu mu xuloo bu ko nit bëggee woccub xuloo sax na ne ko ah man woor mooy kon du dugg ci ay xuloo ke lu ko nuru kon noonu ko doon jéem ci biir weer wi ku ko jéem ci biir weer wi itam nag bu weer yu jàllee du jaadu muy dellu mu cay dellu di nekk ab xulookat wala ab ab tontontekat wala ab waxantekat wiiru weeru koor yi doon nañ ci jéema a yokk ay jëf yu baax ci ay la yu dul farata ci julli ci joxe ak ci man na yooyu ku ko jéem ba koor gi jàll itam xel nanguwut mu daldi ci génn ba sawit bàyyi la mu doon def lépp lu mu daan yokk ci lu baax mu daldi koy bàyyi ngir koor gi jeex na rek kon yooyu yépp ñu ngi ko doon jéem ci weeru koor bi jaadu na kon bu weeru koor jàll itam ñu jéem caa wéy nun nag mbokk yi noo ngi ci feet nekk ci mbégte waaye war na noo xam ne am na suñuy bokki jullit yoo xam ne ñoom taluñ ko sunu mbokk ya nekk Palestine ña nekk ci fitna ju metti ñu leen di mbug mbugal di leen rey li tas seeni njaboot di leen génn seeni kër te loolu Israël moo koy def te am nag réew yu ko ci jàppale ñu ko ci jàppale jàppale gu fés ak ñu ko ci jàppale jàppale gu fésut Amérique ku xam na ne muy day jàppale Israël jàppale gu fés ci lépp lu muy def ci loo xam ne ak tooñ la da cay teg loxoom moom yeneen réew tubaab yi itam am na ci réew yooyu duñ fesal seenum jàppale waaye nag dañ ko jàppale ak yeneen réew sax yoo xam ne duñu réew tubaab ndax jàppale gi gën a néew rek mooy fekk ku ëpp doole keneen di ko ko won te yow nga ëpp leen doole ñoom ñaar ñëpp ba noppi di seetaan loolu rek mooy jàppale gi nga xam ne moo jiitu jàppale te loolu moom réew yu bare baree koy def am nag sax ñu ko wees bu ko defee nag li nu war noonu jullit ñi nga xam ne noonu amuñ kàttanuk man a fànq loolu ci suñuy loxo li nu man mooy ñu sabablu ci li nu man te la ca jiitu mooy di leen ñaanal di ñaan yàlla mu teggil leen fitna jooju ñu nekk ak natt boobu ñu nekk di ñaan yàlla itam al masjidul aqsa mooy jumaa ja fa nekk jumaa ja fa nekk bu jumaay màkka jàllee jumaa yonente bi sallallahu alayhi jàll mooy ñetteelu jumaa ci lislaam mooy ñetteelu jumaa ci teddaay ci lislaam yëpp jumaa jooje kon jumaa la ju jullit ñi fonk Israël nag da ko da teg loxoom di tere nit ñi ñu fay jullee nañ ko bëggee di fa def yu doy waar nu ñaan yàlla mu delloo si jumaa jooje ci loxoy jullit ñi Israël mii nga xam ne ak mbeew rek lay wone yàlla ko doole fopp nu naan yàlla mu yamale ko ba teggil jullit ña fa nekk tiis yi nga xam ne mi ngeen koy teg noo ngi ñaan yàlla kon ñu nekk Falastin ak ñu fuñ mën di nekk ci àddina si dañ leen di bundu ci ay jullit noo ngi ñaan yàlla mu tëyee loxool ña leen di bundu xatal noo ngi koy ñaan mu may yiw àddina ak alaaxira musal na ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil bunt yiw yi soob na ci njub mottali suñuy mébét may nu fanu gudd ak wér ak mujj gu rafet rahmaanu ala ibaadihi alladina stafa ayyuha alixwatu almuminuun fi alwaqti alladi nafraxu fihi bilciid yuujadu ixwaanun lana fi filastin yarzaxuuna taxta niir alittihaad maa bayna qatlin wa tashrid min qibali muxtallin gaashim huwa dawlatu israil attaagiya wa fi dilli tawaatu almuclan min jaanibi alwilaayati almutaxidati alamrikiya wa xayri almuclan min janibi kasirin min addooli algarbiyati wa xayriha yajibu ala almuslimina an yuqaddimu an yaqumu an yaqifu ila janibi hada alshacbi albaasil bima fi aydihim min alasbab wa fi muqaddimatiha istinkaaru hada alzulm wa tadarrucu ila allahi daacina iyahu an yakshifa anhum basa alacdaa wa an yucida almasjid al aqsa thalith alxaramayn alsharifayni ila aydi almuslimin allahuma kuf aydi al aadaai an almuslimina fi filastina wa geyriha waj'al kaydahum fi nuxurihim rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi alaxirati xasanatan wa qina adaba annar rabbana la tuzig qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab waftax lana kulla baabin kunta fatixahu lisaalixina min alxayraati ya allahu waslub binaa nahja rushdin wakfinaa zalalan watrud lana aljinna walshaytaana yallaahu wa kamilan kulla ma nanxu wa naqsuduhu wa hab lana kulla ma naxtaaru yallaahu warud lana kulla di saabin wa di xaranin wa yassiran kulla di taasir yallaahu tawil lana umran saxix lana badanan wa hab lana rushda wa tawfiqa yallaahu waltuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana xusna alxitaami rabbana